mas naa am ñu sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaloo romb ñuy jàng xasida mu ni leen mbaa yéen a ngi ci boole mafatihul bisri man maay mafatihul bisri siiw na loolu li muy tegtale mooy màggaayu xasida gi bu loolu jàllee maa ngi xamle ni doomu aadama ni ko sunu boroom subhanahu wa taala bindi bari na lool lu nekk ci moom ci ay mbir yu wuute ba tax na gis nga jaamu yàlla yi ni ñu bëree te wuute julli woor joxe asaka aj makka xeetu jaamu yàlla gune am na lu muy dolli ci jëmm ji ak lu mu ciy dindi naka noonu xasida yi li ñuy gu ci ne am lu muy dolli ci murid bi ak lu mu ciy dindi su ko defee mafaatul bisri ak nooru daaray ni li tax murid bu nekk war di ko boole ci li muy jàng mooy leer gi mu lay leeral ak neexal lañu la tànnal ci mbir ndax fi mu ne sëriñ Tuubaa baa xaadaloo la maxtaaraloo murit bu nekk am na lu mu bëgg ci yow lu bokkut ak lam bëgg ca bee ci xeeti jëf ginnaaw jaamu yàlla subhanahu wa taala yu mel noon nag xam ko ak taxoo ko ci la lépp nekk ndax day daal di doon saw yoon wu gaaw wu jëm ci moom wallahu aalam